li ñu a ñëpp déggoon nañ ko un lutteur un métier maanaam jàppale tous les lutteurs ñu am emploi parce que nous ñu remarqué saytu ko ci réew mi mooy yaa 9000 licenciés bu CNG reconnaître am na yeneen ci àll bi ci ci yi des non licenciés yoo xam ni CNG reconnaître leen léegi nag euh, booy seet Sénégal dañoo bëgg a làmb booy seet euh, euh, lutte mooy suñu sport bi nga xam ne ñun moom lañu bëgg mais nag tamit nit ki buy bëre dafa war a am métier te booy seet écurie bu ne bu fekkee ne am na cent lutteurs mën nañ ñi ñaar wala ñett ñu ci bëre at ñeneen ñëpp du ñu def dara léegi yow imaginer xale boo xam ne entre na am doole toog atum lëmb bëriwul liggéeyul kooku bu amul ngor day agressé te le problème du président de la république c'est l'emploi des jeunes loolu moo tax daal ñun suñu association bi nekk kuréel boo xam ne dañoo bëgg jóg taxaw jàppale bépp mbeur bo xamni amul métier ñu dimbali ko mu am formation ba paré ñu insérer ko mu am emploi lolu mo ñu tax a di ci le président de la république du Sénégal ndax xam nañ ni suñ tol ni yi ko a soxal ci réew mi c'est l'emploi des jeunes ñi ngi koy wo di di wo ministère am yi tay ministre Dame job yónnee na fi son conseil technique numéro un monsieur Bourissène. mom jël nay engagement Mais, Inshallah, rabbi rabi dès lundi dina waxtaan ak ministre pour mu japp ci mbir mi bëgg nañu wër

di woo surtout Gris Bordeaux mi nga xam ne actuellement c'est le président des lutteurs en activité ñoom xëy na mën nañu seen bopp mais ñi ci nekk seen ginnaaw mënuñu seen bopp ñu ngi leen di woo parce que ñoom xale yi ku ci feebar wala nga am problème wala nga gaañu wala ngay bëre pour ay kaar sax ñoom ngay woo kon ñoom la ñuy njëkk woo ci lii ñu ñëw jàpp ci ànd ceeg ñun xëy na nag dañu am ay empêchement mais ku ci ne ci ñoom jot nga sa lettre te dem nañ ba sa kër wax nañ la ko yëgal nañ la ko mais nag xaw muñu lu leen téye comme que lii lancement la lancement rek la woon dañoo bëgg lii di ñëw muy tournée bii ñu bëgg def naam ñaanuñu leen xaalis li leen bëgg li ñu bëgg ñu defal ñu rek mooy ñu ñëw jàppale seen rakk yi nga xam ne ñoo ne seen ginnaaw te suñu fenn seen ay waajur yaakaar ci ñoom comme que ñoom yàlla dimbali na leen ba pare ñu dimbali nag ñi ne seen ginnaaw loolu rek lañ soxla li ci des nag mooy ñun ñii association bi boobu ba léegi ñu ngi takk suñuy ndigg di xëy di gont di ci fanaan di ci jaamu yàlla kon nag ñu leen di woo ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp ci mbir mi. ñu waroon ñëw te ñëwuñu tey maa di wax ne leen nañu nañu ñëw beneen yoon liggéey bi yemul fii dañ dañ ko lancé rek léegi pour jëm ci kanam waaye nag bu ci kanamee li dikk moo tax dañu war a ñëw surtout seen doom yi ak seen rakk yi parce que bu fekkee da dimbali ba nga agsi fi nga agsi nga banque say loxo di dimbali kenn si seen formation bi bi nga la formé amul njëriñ kon nag ñoom dama di wax ne nañ ñëw ci biir ci biir fis ñu liggéey bi loo xam ne du du du feeñ